asalaamaaleykum mbokku internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal te di sàkku ñaan ci yéen tey décor bi bu ngeen gisee xam ne fii ñu ngi fii ci Seras ñëw war fi waxtaanal ak Pape Diagne Seras ñëpp xam nañ ko ci làmb manager yàgg na topp lamb Leewtoo TV seet si ko tey pour waxtaan ak moom ci actualité làmb ji wax ci moom ak euh, saison bi di ñëw ak grand combat yi fii jot am également euh, Pape Diagne ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Assane. di la ziare gannaaw bi ñu sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di gërëm suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ Seydou Mahamadul Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di nuyu bëre manager Louga bi nga xam ne maay seen njiit di nuyu ñëpp di nuyu président des managers président Babou di suñu papa di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan gudd ànd ak nuyu suñu xarit suñu kilifa actuel mu président Bira Sène di ko dalal jàmm di ko ñaanal yàlla moom it yàlla may ko fan gudd ànd ak wér di la ziar Assane di nuyu suñu papa Alioune bi nga xam ne moo fi jóge yàlla kattanal ko dooleel ko te di ko wax ni rek yàlla na yàlla jàppale ko te lépp lu xam def na ko ci làmb rek ñuy ñaan bira bii fi nekk mu def lu raw lool ci kattanu yàlla di nuyu bureau amateur di nuyu le président des promoteurs sëñ Modou Niang du ma taay di ko wax di ko nuyu di ko sant di nuyu Gaston Mbengue di nuyu lig nig li ko laay di nuyu yeneen promoteurs yi fi nekk yëpp soo limee ñooñu rek lim nga ñëpp Pape euh, fu ñuy dooree entretien bi mooy que ne Aliou def na fi 26 ans de leadership tey jógee na fi ban bilan ngay def ci réñu Aliou waaw bilan bi ñu ciy def mooy président Aliou Sarr li may wax toujours ci président Aliou Sarr damay wax ne sénégalais yi bu ñu ko xarab nañ ko ñaanal yàlla suñu borom yàlla dollil ko kattan may ko wér ndax liggéey nu lu rëy rëy ci làmb ndax ku ne xam na ne làmb bu jëkkoon ay paaka ak jaase ak yat moo fi amoon. ak bi bëree ba pare kenn du la fay am na fi mbër yu fi nekkoon suñu papa ñoom père Falaye Balde yàlla na ko yàlla yërëm ay seen i bon ñi ngi leen kenn fayu leen mais bi ñëwee jël fi loolu te lim ñu wax toujours mooy bépp promoteur buy séq ak mbër ak manager nay doon lu leer ndax lu ñu signé fii ci CNG de lutte balay promoteur bi di dem dañuy engagement yi mu jël yëpp daf koy matale ba donc mosoo dégg benn coow bu am wàllu xaalis ci wàllu CNG soo ñëwee déclaré li nga fa am su mardi jotee manager bi dem ñu defal ko chagam mu dem banque jël xaalisam kon loolu dañ koy wax mention spéciale di ko ñaanal la may wax toujours rek nit ku baax la ku bëgg làmb la tey bu ko neexoon du def làmb ndax am na métier am liggéey boo xam ne tey Sénégal ñoo ko soxla te bu dul yaakaar ni te Aliou Sarr nee naa ko am doom ju mel ne moom nit ku am ngor nit ku am diine bu waxee doo ko xeeb boo ko gisee naw ko gëm boppam mënoo ko ger ci dara te lool la ñuy ñaan ci doomu aadama ci jikko jooju mu ngi ci moom xëy na peut-être nag bu ñu nee CNG de lutte dina am lu baax am loo xam si ne du bon mais dama ne li ëpp ci li mu liggéey li ci ëpp lu baax la leneen li mooy li nit ñi doon jàngat te ku ne xam na ni euh, dara matul kon président Bira li manqué rek lay ñëw mottali ko mais mention spéciale ak suñu papa Alioune Sarr. Aliou Sarr dem Bira Sène euh, ñëw bi nga déggee ne Bira Sène lañ fal euh, la def. waaw bi ma déggee ne Bira Sène lañu fal sama xol dafa sedd Euh, nit la koo xam ni dafa yàgg ci làmb yàgg dund làmb ndax tey bu ñu nee Mohamed Ndao Tyson bi mu débuté wu bëreeg Ngaylum bëreeg Daouda Top bëreeg Cheikh Mbaba quatrième combat moog Alioune Seye président Bira Sène moo ko organisé Kaolack loolu ñu bari xamuñu ko quatrième combat Mohamed Ndao Tyson ca Kaolack président Bira mii moo ko moo ko moo ko tëggoon di nit ku jàmbaare koo xam si ni moo jiite CRG de Kaolack pendant des années mosoo dégg coow ci Kaolack lamb daan na ñëw sax ci biir Kaolack di am ay rëq-rëq war a yàqu Bira ñëw fexe ba loolu lépp deñ kon nit la ko xam ne ku yàgg ci làmb la ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla kattanal ko dooleel ko ba yan bi biñ ko yan mu ayof tooy ci kawam beneen bi ci tegu mooy bi ñu ko falee nag man rafetlu naa fal gi mais ni ñu ko falee laa rafetluwul loolu toujours du ma jóg ci di ko wax. li ma ci rafetluwul mooy biraa bi ñëwee indi président Alioune Sarr dañ ko indi bàyyi ko moom moo fal bureau moo andi ay arbitre am muy président Khalifa saw moom moo indi ay euh, superviseur am ñoom Thiam su ma doon lim ak ñoom Fall fi laay yàgg ak ñoom Thioune moom moo indi. commission et règlement et discipline di ci gërëm nag Babacar Diouf bu baax a baax ci liggéeyam bu rafet nit ku gore moom it ku baax koo xam ne si léppam làmb la président Alioune Sarr moo andi loolu lépp ci biir làmb yi andi lépp teg nit boo ko falee da nga koy fal waaye doo ko ñëw di ko fal di ko andil ay nit yu muy liggéeyal du ma dañ ci di ko wax dëgg yàlla moo ko moom. moom départ di wax leen damay jaale Sénégal yëpp Pape Bouba Diop muy le monument ci Sénégal def lu rëy loo xam ne dootu fay histoire dootu ko fay bu ñëwee tey ci histoire Sénégal kat moo jëkk dugal bii dañu naan Pape Bouba Diop ci coupe du monde moo ko jëkk a dugal Sénégal li ñu koy jooyal rek mooy gàttu fan mais nag li may wax toujours mooy euh, dund lu gàtt liggéey lu am solo loolu la def di ñaan suñu borom yàlla xare ko àjjana wàcc yërmande ci kawam xool yi duñ jóg ci moom loolu laa waroon njëkk commencé tey lu mel ne CNG de lutte lu mel ne tey jii fal ku mel ne président sëñ Modou Niang kenn wowul sëñ Modou Niang arène nationale nekk du ma wax pour wax dara pour lenn dama bëgg pour ministre pour bu ëllëgatee mu ubbi ay bëtam di xam ni am na loo xam ay faay la sëñ Modou Niang kenn wowu ko Luc Nicolaï kenn wowu ko Jax production kenn wowu ko kenn wowu ko xëy na bu ñu nee woote du mën a matal mais am na ñoo xam ne sin ci làmb kenn wurta dem bàyyi leen jax moo jëkk teg 10 millions ci ci lamb simple bokk ci promoteur yoo xam tey dañuy développé di yokk lamb ñu meloon tey booy woot da leen a war a woo ñu ñëw sëñ Modou jour bi ñu koy di woo gars ci la woo sëñ Modou ñu defate bu leen kenn fàtte ndax Luc Nicolas xoolal combat bi mu décroché Modou Lo ak Ama Baldé Sénégalais yi di ko jooy pendant des années lu ma 10 mu ñëw décroché combat bi mel ak li fi def yeneen yu dul yooyu nga andil ñu euh, Balla Gaye numéro 2 Bombardier revanche boo xam ne si ni moom Sénégal yëpp soxla woon danañ ci ñëw après beneen bi ci tegu daal mooy président Bira ñu ngi lay dalal bu baax parce que nag bi mu ñëwee ci làmb ji suñu xel dal na ñun manager yi la jëkk jiital mais suñu xel dal la daal. léegi su ma la déggee mooy que ne la fekk que euh, Ba jiital euh, teg Bira Sène ba pare jël ay nit teg ci teg ci wàllam loolu mën na ko freiner su ma la déggee bu baax. waaw parce que loolu njuumte la. nit boo ko jiitalee da nga koy jiital rek ne ko équipe baa ngi noonu demel doxal nga liggéey bira boo demee CRG de Kaolack li ma la wax bu la neexee jëlal say caméra nga ànd ñëpp ñu dem laaj askanu Kaolack dañu naan bira moo bokk na ci président CRG yi gën ci Sénégal parce que dundu na ko xam na làmb yàgg na ci làmb man bis euh, prince di organiser Kaolack war fa organiser man la doon wax may jokko ak moom te bi may jokko ak moom sama xel dafa dal ku mel ne sëñ Modou Niang yàgg na liggéey ak xam na ko ku mel ne Gaston Mbengue yàgg na liggéey biraa xam na ko mooy Bira Bira mooy moom yàgg nañu ànd ñoom ñaar ça fait des boo génnee seen ànd ci samay at damay jeexal kon kooku xam lamb la soo ñëwee jox ko lamb ji da nga ko naan mi ngi nii mais tey boo gisee CNG ba nu ñu ko bëggoon a jox mais xamul tax ñu rasu c'est parce que doxalin bi neexu leen mooy doo jël nit jiital ko ba pare aussi ni ko yow ñii ngay àndal liggéey nit boo ko jiitalee da koy jox CNG kuy ne ci poste waroo fa nekk parce que yow yaay euh, atte te yow yaay juge yaay avocat yaay nday ji seex da nga war a yamale ñëpp benn ndomba tànk daal boo xam ne si am nga ko ci làmb soo xasee am waratoo nekk ci membre CNG de lutte. bu ma la déggee mooy que ne yow d' accord ci cumul de poste yi parce que am na ko man li may wax rek pour luy jëriñ làmb rek laay wax maa ngi nuyu au passage sama doomu nday Abdoulahad Ndiaye parce que keroog bi ma defee sortie bi am na ñu dem ci moom sax di ko expliquer ne ko Pape xanaa bi muy def sortie tàgguwu la ma ne ko man su may wax lu baax ak di ko def du ma tàggu kenn parce que li may wax rek jàpp naa ni moom mooy li jariñu làmb parce que njariñu làmb tey jii dëgg-dëgg mooy ñu continuer liggéey te bàyyi xiiro bi ak ŋaayoo bi ak parparloo bi bokk ndey bokk baay xool fay yi am ci làmb ñu continuer liggéey làmb ji parce que làmb ñu ñoo ko mën a doxal ndax ñooy jeunes yi tey mag ñi ku mel ne suñ papa Alioune Sarr mag la ñoom dañuy dem bàyyi ñu fi ñun xale yi ñu des fi nañu ànd ci dëgg rek liggéey tranquillement lamb jëm kanam. Bira Sène bi mu ñëwee li ñu njëkk def moom mooy wàññi licence yi wàññi na licence su promoteurs yi managers waaw bi mu ñëwee dafa def loo xam ne sii ni vraiment ñun ñëpp yàgg nañ ko jooytu licence su promoteur 300000 la woon Bira yóbbu na ko 200000 licence su manager ñun 50000 lañ doon dagg defal nañu ko 30000 mbër yi doon def 10 000 mu defal leen ko 5000 léegi nag li ñu bëgg mooy mu wàññi frais d'organisation yi arène nationale bii ñu wàññil ñu ko bu dee Sénégal moo ko moom bu dee nag ñun moomuñu ko ñu yóbbu ubbil ñu Iba Mar Diop ñu stade Bargny ubbil ñu Mbaaw ubbil ñu Rufisque pour lamb di dox comme ni football bi doxee su ko defee chaque dimanche mbëri di mën di bëre parce que mbëri ñoo ëpp journée yi ni ma koy waxee li fi toog ci ay xale bëriwuñu man mi rek benn ci man li ma yor ci ay licence yu bëriwul mooy doxal lamb ji beneen bi tegu mooy mu nii rek bira wàññi bu déwénee nga yokkwaat ndax corona bi wàññi bi na continuer rek bu ko defee ñëpp gis ci seen bopp làmb mën a jëm kanam kon Bira loolu dañ koy sant gërëm nga xam bàyyi na leen muy Sitor di président bi di Malick Ngom sama xarit Sitor sama xarit ak ñoom Dramé ak ñëpp ñooñu suñu doomi ndey lañu yàgg ak ñun ànd ak ñun gungee ñu bañ ak fi ñàkk loolu suñu xol def ci seet bi ma ko déggee dama kontaan te xam ne rek liñ doon wax ne Bira nit ku baax la nit ku xam làmb la rek mu ngi ci yoon gracié nañ si Sitor Ndour mais ba léegi seen commission bi kenn occupé wu ko commission euh, centrale commission centrale des arbitres ba léegi kenn occupé wu ko yow est-ce que d'accord nga si ta Sitor jël commission boobu wala. waaw d'accord naa parce que Sitor borom xam-xam la ku ne xam ne jàng na te wax dëgg yàlla arbitre wàllu arbitrage macha allah mais loolu dañ koy bàyyeeg loxo bira parce que comme mooy euh, président bi Sitor a ngi fi suñu papa aussi euh, papay Maguette Sow bu CNG Khalifa Sow. aussi bi arbitre yi demee gis nga ko moom moo ñëw indi ay arbitre mention spéciale suñu papa Khalifa di ko ñaan moom it yàlla may fan fanu gudd yàlla may ko wér ndax moom xaw ma woon li ko luyee woon ak sama famille parce que suma tante nday topp ci Louga euh, doomu doomu Khalifa boobu doomu Khalifa Sow Maguette saw maire Ndeye Top ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay te loolu xaw ma ko woon kon xam nga ne Sénégal dëkk la bu ndaw mais ñëpp ay mbokk lañu kon dañu koy gërëm di ko sant aussi di ko ñaanal yàlla moom it yàlla bàyyi ko suñ kanam moom Khalifa nit ku baax la di la wax ne daal nañu ko bàyyi mu liggéey man su ma seen sama sago ñu bàyyi Bira mu liggéey CNG bi nag na stade yi nañ ko ubbi euh, feebar bi yàlla jëlee ko fi xale yi commencé ñu commencé lamb ji mu sàjj Euh, samedi passé CNG bi dalal na leen réunion boobu yéen a ko sàkkoon wala da leen a woo. te xam ne manaat ay risques yu a mag la bira mu ñëwee ñun demandé wuñu ko moom moo demandé président Babou ni ko dama bëgg a jëkk recevoir manaat yi parce que manaat yi su ma juumul en 1950 wala 1960 ci la bureau manaat am kon manaat tey structure yi ne ci lamb yëpp manaat ci mag. mais manaat am na ñu leen agent wax moom li ma la mën a wax ca leer mooy man mbër yi ma yor soo ma nee agent dama lay wax laa xam su ma joxee confiance ñu liggéey su ma joxul confiance ku ne dem parce que am na mbër yëpp ñaari mbër yoo xam ne mbër yu mag lañu ci wàllu agent ci laa tàggoo ak ñoom du ma tudd seen parce que bi ñu ñëwee bëgg ma proposé agent dama ne ma wax agent parce que bi 40 000 francs di ñëw di ñëw man gisuma agent mais su ma nee ba 1 million ñëw 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions nga bëgg mandil agent man du ma sama téléphone di woo benn li yàq làmb agent moo yàq làmb. loolu lan moo ci responsabilité CNG. waa agent. CNG li mu reconnaître mooy manager parce que licence bi licence su mbër licence su manager manager la CNG di waxal mooy jëri xaalis mooy jëri avance mooy signé contrat wu mbër yi mais agent moom ci wax ji ci biti la yam mais ci biir CNG xamuñu xamuñu agent di ñaan aussi les promoteurs ak ñun suñu mbokk manager yi contrat yi di dem CNG bu ko xaalis yëpp di dugg foofu su ko defee su mbër mi bëree ba pare xaalisu contrat sponsoring am dañ mbëri bi day yaakaar CNG daf ci jël CNG daf ci jël dërëm daf la ko su dee 100 millions par exemple pour tey mu leer ci mbëri parce que mbër mi tey boo gisee cachet bi ñu koy yi day wàññeeku mais tey bu dee 100 millions mën nañu def foofu 40 millions 60 millions sponsoring su mbër mi bëree ba pare ak sanction yu mën ci moom su maadu jotee mu dem jël xaalis sponsoring am yóbbu ko defee alalam du mën a parce que ay mbër bari tey ñu ngi daw ci bi mu bëree ba léegi ak Modou Lo seen combat boobu mën naa lépp seen kase jotuñu ko c' parce que sponsors yi duggul woon au niveau du CNG diwaanu promoteur nañu dugal euh, sponsors yi au niveau du CNG mbëri ànd ceeg ñoom seen mooy que bëgg ngeen caché ñu ko yóbbu CNG lan ngeen ragal ba bëgg euh, di ñaxtu loolu. waaw boo gisee ñu bëgg koo ragal mooy ñi ma koy wax toujours d' abord promoteur bala ngaa war a nekk promoteur da nga war a am statut CNG war na xam ki muy jox licence kan la parce que promoteur du n'importe parce que tey jël ay mbër tëgg leen ñu bëre ba pare nga daw ak seen xaalis sponsoring bari na fi kon loolu bu ñu koy wax dañuy jàppale mbër yi di jàppale suñu mbokk. man nga ci euh, cité xam nga tey comme damay wax ci àdduna di ma seetaan te ñooñu dañuy am njaboot du day metti mais pour rek ñu jàngat te xam ne làmb ji soriwut ñooñu xëy na peut-être dem nañ ba ci biir signé ak ay sponsor sponsor la ñu waroon a ak ñoom def ko ak ñoom muy ci wàllu euh, xaalis defuñu ko ñoom parce que tey am na fi sponsor bu mag ñëw na tey waxtaan ak promoteur ñëw ci man bi mu ñëwee ci man dama ne promoteur bu ci dugg Gaston Mbengue la jëkk seeti Gaston rejeté ko mu départ di ñëw ci yow su lu légal lu leer la Gaston du ko rejeté promoteur boobu bi mu ci duggee dafa am ay problème li ko ci gis na ko liggéeyam yàqu après mu génn Sénégal dem bitim réew donc moom laa lay expliquer du ma tudd tur parce que a xam yow ci lamb ji mooy CNG bi ñun li mu jëkk a def ak ñun suñu xel dal na ci promoteur dañu war a xam kan mooy promoteur tey war nañu xool sa casier judiciaire verse war nañu xam xaalis bi nga yor ñaata la parce que lamb du ay caaxaan 15 jours avant reliquat war a war nga jël date war jox leen avance te lamb li ma la toujours fay mbër moo ci gën a néew d'organisation yi day ñëw mais tey Samba Bara Mbàcc bu jóg lambar lambari ñu promoteur soo yoree 200000 dem ñu jaay la loolu dama ne ak jël carte di ko jaay ku dul ménager loolu tamit ànduma loolu lañ président Bira parce que am na yoo xam ne jël carte di ko jënd pour di ko dugal làmb du ñu manager du ñu promoteur parce que CNG moo koy jaay ñu di ko jënd yu mel noonu Bira war na ci veiller di ci xool bu baax baax. d'accord wax nga euh, sànq ci affaire manager yi mais ngi leen di euh, joxoon baaraamu tuuma yéen dañ ne ngeen fi nekkee mais lu waral euh, affaire seen mbër yi du leen ñaax ci règlement yi du ngeen loo du ngeen du ngeen toppatoo yu demee noonu est-ce que loolu légalement du erreur seen dama ne toujours du lépp mooy baax parce que boo dajalee njaboot rek dina am ay failles dina am lu dul faay mais man mbër yi yàlla dogal ma yor leen yépp ci Sénégal tey muy ay espoir te loolu laa doon ñaan yàlla dama doon ñaan yàlla suñu borom yàlla may ma xale bu fay ak 100000 ba àgg ci ay millions yàlla defal na ma ko kon man wax naa ne làmb lépp lu ma ci amati rek sant naa ci suñu borom bu baax a baax su yemoon fii sax neex na parce que ànd ak ay xale ci 100000 ba ci ay millions te doo dégg coow doo dégg dara dinaa ci cité ay xale su ma doon lim nag ñenn ñi mën nañ may mere mais am na xale yoo xam ne si ni dama leen sant di leen gërëm ku mel ne armée cent mille la ànd ak moom ba ci million du caaxaan soo waxee mu ne Talla Diop ak Pape Diagne Seras ku mel ne Jadli sant naa ci yàlla ku mel ne Gora Sock sant naa ci yàlla. Gora Sock lan mooy problème. mooy gars ñemewuñ ko adversaire bu ñu wax ñu ni Grom Moussa Ndoye lamb dàq ko ñi fi mën a bëreel macha allah bari na su doon lim ci mbir yi ma dama ne samay mbër. su ma doon lim xëy na dana am ñoo xam dégguñu ma sax dañuy mer te buñ mer dañuy xam ne yàlla moo boole ñoom maa ngi ñoo bokk ndey ak baay man xamee wu ma su arbitre ma dama ni heure bu combat fekk ma may wér dara daluma huit heures maa ngi sa kër su ma mënta ñëw maa ngi saat dama lay wax li règlement bi nangu boo defee li ñu dagg sa xaalis ku ne gis na ma dañoo pap xàmmewul mbër mi ak mbër ma le c'est parce que li may lekk bëgg naa aussi mu lew loolu laa wax ne suñu mbokk ménager yi lu ci ëpp loolu la ñuy def xëy na xaalis bi ñu gis mooy mbër mi soo àggee cent rek coow bari ku mel na Valdo damay Pape man xaw ma luñ may fay luñ la fay jëlal. Valdo yaa ko dudd sànq war na bëreeg ak dem Deme. Ahmed Deme euh, combat boobu fu mu nekk fu mu toll. waaw day boo xam ne mag Dame man Mansour ñoo ko taxawaloon rakk ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye mooy Yaaba Ndiaye di ko nuyu au passage di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér lamb ji day ba ci biir ministre de l' intérieur def yi fu gor def yi fi euh, euh, responsable def yi fu ku jiita ñëpp njaboote ñëpp ndax dañu man bala may yor yat di dóor kenn sama kër laa koy jëkkee ñun la jëkk avertise ñun làmb du mën a am ñu ne ah, ministre loolu dana métti de mu ne parce que feebar bi fi ndaw te mi faagaagal ñu ni ah, man ministre de mooy sama papa mooy sama kilifa mooy sama lépp ñoo bokk ndey ak baay yaaba man damay def ci moom royukaay parce que bokk nit ndey ak baay su ne nga bàyyi su defal nga def loolu dama ni yombul kon bi mu ko defee Ahmed Deme ak Valdo a rëy lu a jox ma ni ma joxal Valdo yëkkati enveloppe jox ma ni ma joxal Ahmed Deme te ku ne xam na ne ay reliquats am dugg na euh, Louga ci président Serge Ba ndax bi lamb ji desee ñeenti fan man dama ni bi lamb ji desee 15 jours reliquats yi dem na Louga ca président xaaliwaar xaalisam tëdd fa di ay millions mënoon a liggéey leneen mais mu boole gëm yàlla yëkkati ñaari enveloppe jox Valdo jox Ahmed Deme ci àdduna laay wax ñëpp di ma seetaan di seral yi bi loolu amee Ahmed Deme ak Valdo gëm yàlla xam ne loolu mbir suñu borom la ndax mënuñ entraîné ba ci bis am mbër mu gaañu. bi loolu amee gis nga ni mu demee soq gàmmu gay ñu annulé ko annulé yeneen combat yi woon ci gannaaw yëpp ñu xam loolu mbir suñu borom la mais daal mention spéciale ministre de l' intérieur Aly Ngouille yaaba yaa ngi dégganteeg moom pour que euh, bu euh, saison bi reprendre rek mu tëgg combat boobu wala moom. waaw démb rek wax dëgg yàlla ci heure bii ku dee ak sa bàmmeel yaaba woo téléphone ni ma Pape dama bëgg bu ñu ubbee rek. ñaari mbër yooyu ma teel leen libéré ndax ku ne xam ne làmb dafa métti te war nañu amaat yeneen i combat muy Valdo Dem nañu préparé wu te xam ne nee na ma bu ñu ubbee rek dama jël première date dimanche bi jëkk ñu bëre ci diggante Valdo ak Ahmed Dem di ñaanal ñaari mbër yi yàlla may leen wér ñi ànd ak ñoom yàlla defal leen jàmm di wax ne waa Linguère am ngeen combat oo xam ne àdduna ko soxla woon Valdo Ahmed Dem Ndakaaru gën a bëgg mais yaaba dafa lépp lu ma am Linguère laa ko yéene xam nga lu ma yaaba doon doxloo sa dëkk la Linguère Ama yaaba dafa ni ma demal nga doxi Modou ko yaaba parce que ligue moo ci doon waxtaan yàlla dogal mu nekk ci ginnaaw loxo euh, maanaam euh, yàlla teg ko loxo dañ koy ñaanal yàlla mu génn yàlla def na loolu génn na yàlla na ko yàlla may jàmm yàlla may ko wér ba làmb jooju sotti ci kàttanu yàlla mais yaa ba bëtam sax wallahi Balla Gaye la ma doon wax ak ñoom Modou Lo ak ñoom Ama Baldé. d'accord ñu dugg ci saison bii di ñëw euh, ñu ngi ci décembre mais ba léegi benn combat demagul est-ce que loolu saison bi est-ce que narul gàtt. waaw saison bi moom xam nga dañuy wax toujours rek mooy di ñaan yàlla def jàmm. ba feebar bii fi dugg génn fi parce que feebar bi du ay caaxaan boo xoolee Europe tey match de football yi nga seetaan télévision yi li daan ñëw ci ay nit boo ko doon calculer ci xaalis ay centaine de millions la ñu def ko ay huis clos xam nga loolu lamb attanu ko mais su ko lamb attanoon tey huis clos la ñuy dem mooy que lamb doxut. pourtant Modou vendredi bi passé moom pare pour def huis clos est ce que yaakaar nga ne loolu mën na waaw dañu koy delloo njukkal di ko ñaanal yàlla moom it yàlla bàyyi ko fi parce que nekk roi des arènes geesuwaat di xëj say rakk di bëre ak ñoom dama ne su ko mbër defee fi bëriwul yëkki ko fi def nekk roi des arènes geesu dem bëri ak Gris Bordeaux ne damay may sens samay rakk parce que nag dégg naa yàgg na ko wax ni man su ma nekkee roi des arènes dama yóotu ñoom xale yi ñoom Boy Niang ñoom Ama Baldé ñoom Tapha Tine ak ñoom loolu wane ko euh, yàlla mu am mais du lu yomb muy Tigo ak Orange suñu def si waatoon ci làmb combat Modou Lo Ama Baldé mën nañu ko def huis clos. lan moo tax sponsor yi mënuñu ak si ñëwaat ba léegi pour yow. waaw c'est parce que li tax mënuñoo ñëw mooy état bii fi nekk ñu jégal ma li ñu naan président Macky Sall mooy sponsor yooyu demoon nañu dimb laay war a suul ñu ñëwaat ci làmb ji. parce que làmb tey Sénégal sport bi gën a mag tey ci adduna mooy làmb làmb raay yi ñu wax ci àdduna bi yëpp làmb na ko Sénégal équipe nationale de football wax dëgg yàlla ñu ñëpp moom lañ bëgg coupe d'Afrique la ñu ñaan boobu nag mënuñu ko am lamb andi na fi coupe d'Afrique andi na fi lu ne. lan la defoon lan la mën a def ba andiwaat sponsor yi pour yow. mooy waxtaan ak sponsor yi ñu leen lamb sport national la xale yi ñoo ko moom Sénégal ko moom déet si waat leen ngeen jàppale lamb ji su ko waxee bu subaa Orange ñëw bu subaa Expresso ñëw bu subaa Tigo ñëw. mais ñooñu yi am ci àdduna bi yu ci bari gis nga ko yaa gis oligans yi Angleterre lu war a du violence parce que làmb nag toujours nag ak coow ñoo ànd mais amul problème parce que nag tey jii mag bi ma ci tàngal sukar saa tax làmb boo ko dem seetaane dóoree moo tax am na ñoo xam ne seen bëri dóor tey jii mën a gënal lu ne loolu mooy tax ñoom dañu war a dellu soit yi ñu ñëwaat làmb mën a dem tey billaay wallaay làmb tey moo mën a dem tey commencé sans billet di am stade bu ko defee ñu war a fay ci droit yi ñu fay ko ci télévision yi bu ko defee sponsor yi ñëw ñu tëj làmb tey moom Ama Baldé Modou Lo moo nekk tey suñ première du Sénégal ñu def laamu joxaan si tey sponsor yi ñoo koy fees dell stade bi kenn du fa nekk mbëri ñoo fay nekk ak nombre de personnes yu leen may télévision yi fay seen i droit sponsor yi fay promoteur bi gis ci boppam lamb mën jëm kanam ñu mel ne moo Modou Niang di def 20 jours ñëw ñu mel ne ñoom Jax ak ñoom Dieye ak yeneen promoteurs yëpp ñëw lamb gën a jëm kanam loolu mooy gën a avancé lamb mais lii moo lay wan ni rek lamb doxut. ay grand combat yu bëri taxawoon nan fi am nan fi Tapha Tine am nan fi Balla Gaye 2 Bombardier Eumeu Sène Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Modou Lo a waaw affiche yi bi ma ci gën a marqué dëgg-dëgg su may wax dama naan affiche yëpp ñoo ma marqué mais bi ma gën a marqué mooy bu am a Baldé ak Modou parce que boobu sénégalais yi dañ ko yàgg di coow bëgg ko làmb jooju nee naa ko laa nag li ma koy lancé appel sama xarit la mooy ñaari mbër yi bu leen kenn boole plateau ñu toog comme dañuy wax violence ci làmb Modou Lo Ama Baldé ñaari mbër lañ yoo xam ni yow yaa ma leen gën a xam suñu mu neex suñu feccee mu neex. suñu signature mu neex déjà rek Modou Lo conférence de presse bi def ajuma rek te Ama mooy def ajuma kon donc dangay xam ne ñaari mbër yu am ginnaaw lañ dama ne bokk nañ ci mbër yëpp gannaaw tey ci Sénégal dama ne ñoom ay ambassadeur lañu Modou Lo waxtaan ak ay stafam ak xale yi koy topp Ama Baldé waxtaan ak xale yi koy topp te ñu xam ne mbër du ay caaxaan Luc Nicolas li may lancé appel mooy ñaari mbër yooyu bu ñu war a def ndaje nañu dem télévision yi jëli Modou Lo fa mu ko war a defee muy parcelle bu dee Ama Baldé ñu jël ko ci Pikine mais heure bu boole daje leen ci benn millier suñu génnee bu ñu wax leneen mën naa am ndax dama ne ñaari mbër yooyu ah mbër lañ ci biir mbër yi. techniquement nan ngay analyser combat boobu. waaw combat la boo xam ne dama ne le meilleur combat de bi ci dikk mooy combat jànq la Yékini keroog bi mu dajeeg Mohamed Ndao ko. ñu war a bëri revanche fii ci stade Léopold Sédar Senghor parce que boobu xajuñu ci mbedd yi xajuñu ci stade yi. kon Tyson daan na Yékini. Tyson dafa daan Yékini Kaolack daan Yaamu Sarr daan Bunaama Joom Rasta daan Malick Guéñeen daan Yékini ca Kaolack ñu ñëw Ndakaaru bëri Yékini doo ko daan Tyson dafa raatale Kaolack doog a ñëw Ndakaaru bi mu ñëwee ubbi bul faale ñëw ubbi écurie ba gis nga ko lépp lu mu def tey ci làmb lu ci bari ci moom lañ ko gisee loolu mooy Ama Baldé Modou bëre Modou Lo daan ko loolu métti Ama Balde ñuy coow di coow di coow ba gis nga tey fi leen làmb boolee ñu àggu au sommet ñoom ñaar dama ne yàlla na yàlla may wér yàlla may leen jàmm ak mboolem sénégalais yi ba mu fekk ñu fi mais li ma wax dama ne lim ñu ko leen ndax Modou Lo Ama Balde rek doy na la làmb ku ni diwoo man rek ngaa juum ndax ku ci ne am nga naa la damay wax àdduna di ma a wax ñaari mbëri seen fort mais li ma la mën a wax ci Assane ci combat boobu mooy combat la boo xam ne dina bokk ci histoire làmb te it li may ñaan ñaari mbër yi mooy suñu bëree ba pare képp ki daan ak ki daanu ki daan na jël ki daanu yëkkati ko akolaat ko te xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom ñëpp doomi réew mi lañu ku ci ne xam ni lii sport la lamb moo ne damay xaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay zéro violence. arène nationale lay combat bi di amee est du risque. waaw arène nationale bi wax naa ne sax xaju fa li may ñaan promoteur bi mooy bu ñu demee ba stade bi fees ñu tëj porte yi ñeneen ñi dem ci télévision yi seetaani ko parce que ñaari mbëri xajuñu ci stade bi bul fàttali di bërki dem boo ñaa diggante Lac de Guiers 2 ak dañu raase stade bi Ama Baldé mën na jël stade ba mu fees Modou Lo mën na jël stade ba mu fees xam nga ñaari mbëri xajuñu fa mais bu stade bi feesee ñu limité ko def ko guichet fermé fu biir yam ñu yam fa ñeneen ñi mënut am billet te xam ne ñoom ñoo am billet ñu dem ci kër yi ko doon yokk mu gën a doy lamb la woon joo xam ne àdduna ñoo ko soxla Bombardier dem ba ci fin de carrière muy jeexal Gaston ñëw yóotu ko jox ko avance loolu du lu yomb kon Bombardier moom it nangu naa may mu ambal seen euh, euh, euh, revanche muy combat bu rëy yàlla na yàlla defal jàmb di la wax ni combat bu mag a mag la te buñ ci jubloo da xam ne combat bu mag la beneen bi ci tegu muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak Ladd ak Balla Gaye ak Bombardier astafurlah Balla Gaye Bombardier combat capital la parce que Balla Gaye de dama la wax toujours mooy lamb. laaj ma tax mooy làmb su waxee àdduna bàyyi xel ci li mu bëre su bëree mu neex su feccee mu neex su tuusee mu neex te it nag ndaanaan la man a bëre mën bis ci moom la yam Bombardier di champion boo xam ne tour na reeri Ndakaaru yëpp ñibbi Mbuur combat la boo xam ne daal damay ñaanal Bombardier ak Balla Gaye yàlla may leen jàmm di ñaanal Bombardier magam ja fa mu tëdd daxal ko fi mu jóge muy Pape nekkoon suma xarit dëkk ak samay mbokk Sotodo Pape Dia yàlla la yàlla yërëm yàlla xaral àjjana Balla Gaye ñoom ñaar ku ci da nga ñaar ñu mag ci yow Bombardier dafa ñàkk Pape Dia Balla Gaye ñàkk suñu père Balla Gaye Ndour bàyyi Youssou Ndour nga xam ne Youssou Ndour la ko tuddee direct di ko ñaanal moom fi mu tëdd ci Cambérène yàlla defal ko fa xéewal mu daje yërmande suñu borom yàlla tabal ko àjjana mais da xam ne ñaari mbër ku ci ne ñàkk nga daal kenn ci yow. lan la leen mën a euh, yokk lu muy wan wàññi seen combat boobu. waaw lu méttee métti parce que ko ne xam na ne bu làmb dengotee ba desul lu arbitre yi père Balla Gaye nga daan gis ak Pape Dia te yàlla dogal tey ñu dëddu fa ñu tëdd yàlla ne dàq fi ñu jubee te xam ne nag àdduna nii rek la demal maa ngi ñëw dara jaru fi xuloo dara jaru fi ŋaayoo parce que kullu nafsin zaayiqatul mawt loolu rek doy na exemple Bombardier Pape Diop moo ko gunge gis nga ndeysaan fekkiwul carrière fi mu jeexale père Balla Gaye Ndour moo encadré Balla Gaye 2 xool fi carrière am di jeexee ndeysaan fekkiwu ko ku ne Lac de Guiers na ko yàlla yërëm moo ko encadré ma bu ñu àggee ci com ko àdduna bépp moo ko encadré fii ci man yàlla dogal tey mu dëddu àdduna. lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy sant waa Seras yëpp ndax fii nga ma fekk nii mooy sama bureau fi laa déggee ngóor si fi laa déggee grand fi laa ñaan yàlla dégg góor gi parce que Seras laa am fii mooy sama teraanga fi nga ma fekk sama xol sedd guy di sant waa Seras yëpp ku lim da ngay juum di sant sam-sam gi ma yeewoo di sant waa saxaaf gi nga xam ne dëkk. nekk ca Louga ak waa Njang Ba Mbodj gi nga xam ne ñoo ma yar muy famille Mbodjeen ca Njang Ba Mbodj lépp lu ne ci man ñi def ko ci di sant famille sëñ Abbas Sall bu Louga ndax xana fee laa jànge di ci jiital nuyoo bi ci sëriñ Mansour ci jigéen ñi ma koy teg ci soxna Ndiaye Sall Abbas di la wax daal fekk nga ma foo xam ni sama xol sedd na ndax fii lépp lu ma fi laa ko amee di la dalal jàmm di la ñaanal yow it yàlla suñu borom bàyyi la suñu kanam ndax yaa ngi def lépp luy njariñu làmb di nuyu sama xarit sama seex Abdoulahad Ndiaye di ko ñaanal yàlla may fanu gudd yàlla may ko wér di ñaanal ndooy bu sëñ Modou Niang yàlla bàyyi ko suñu kanam moom it liggéey sëñ Modou Niang yëpp ak sa gaay yi nga àndal wa wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf mi ngi noonu ñu ngi leen di remercier waa Seras yëpp ñu ngi leen di remercier gis ngeen ko décor bi nu mu rafetee gileem yi nag ñi lépp ci biir donc ñu leen di jox dig daje ci yeneen di jotaay jërë ngeen jëf merci beaucoup.